mbokk internet Xéweul TV mbokki Thiès mbokki Sénégal mbokki sportif yi seen émission jotaay nawetaan tey dafa déplacé wu dem ba Mbour ngir seeti doomu Thiès doomu Thiès boo xam ne tey foo boo déggee turam di nga xam ne kii am na lu mu def sport Thiès si nawetaan ba championnat ba si équipe nationale catégorie yëpp jaar na fa muy kan l' international Djeylani Fall Djeylani nag boo ko déggee presque xel dafay dem si Ablaye Diaw. mi nga xam bu saan sol maillot rek wala ñu sélectionné ko tey da ngay dégg Ablaye Diop fu mu toll Jeylaani Fall Jeylaani Fall Jeylaani Fall tey nag moom déplacé woon ba Mbour seet si ko pour waxtaan ak moom Jeylaani ñu ngi lay nuyu. moom maa ngi leen di fay. Jeylaani émission bi jotaay nawetaan la tudd li tax tuddee ko jotaay nawetaan. xam nga loo gis ndorteel gi nawetaan la. booy seet football booy gis fi ñu lay njëkk a xamee si mouvement nawetaan lay doon booy seet nawetaan la joueur di commencé ba ñu xam ko si championnat. ba mu yegg fi mu war a yegg yëpp mais ndorte bi yëpp nawetaan lay tax moom lay doon moo tax émission bi tuddee ko jotaay nawetaan mhm. sa jaaras nawetaan lan nga ci mën wax waaw sama jaar-jaar nawetaan j'ai joué à l'ASC Taaxi Kaw fa laa débuté sama sama carrière nawetaan mhm. joué naa fa presque trois ans mhm. bi may soog a joué nag dama doon góolu góol waaw góol laa woon góol naa année senior après par la suite année bi ci top ma ñew man damay football hmm. bi mo footballé ñu finalu yalla ñu finalu hmm. dal di jël jël jël jël coupe bi hmm. waaw la c'est dégo dal la commencé sama sama newetan la c'est dégo bu ties voilà musa am licence mais dan na dem ci yenen dëkk yi tamit di fa jouer comme mercenaire comme mercenaire waaw ñu may wo lu ci melni ay louga ay penc bu louga di ci melni ay jurbel ay kaolak fune fune fu football na fa newetan coupe bu ne jël naa ko tamit. ah ok c'est vrai nga commencé ban moment nga sentir ni que ni yow football bii war nga see mën a war na doon métier si yow. parce que euh, moment bi may góolu. Mhm. da dama doon focc yi. comme comme paa yi bu ñuy seetaan ci ginnaaw. Mhm. léegi bu ñu dóoree bal su ma ko waree jàpp. léegi dama koy teg dënd. Mhm. su ko defee paa ne ci ginnaaw di di di di saaga. par contre nag bi ñu bi ñu bi ñu yàlla defee ñu toog. après ci deewen sama ñew man damay damay damay damay damay damay damay golu ñu ni ma nono ya, yow do golu parce que yow da ngay tiaxan man len kon buma golu damay football ci la ñëwé commencé football début bi nak ñu yaakaar damay tiaxan jëlu ñu oh, premier match yi jëlu oh, ñu ma may entraîner rek continuer légui eh, premier match bi ñu jël ya, nak ñu nak renaissance far suñu attaquant bi gañu fekk man rek ma fa sess ñu ni man nak da ngay da ngay da ngay ki da ngay da ngay yow ya, ya sess da ngay football man len ci laa duggee nag daal def marché bu baax après fa laa commencé nag di football. comme maanaam bu ñu la déggee daf mel ni affaire plaisir ko jàppee woon rek football bi. waaw plaisir laa ko jàpp parce que damaa xamoon sama talent tamit. parce que naa boo xam ne moment yooyu maa ngi woon cadet Sénégal di entraîné ñoom mosu ñoo xam ni damaa ngi entraîné football. xam nga su ma ñëwee suñ ma waxee kaay kaay kaay football man leen déedéet damay góolu parce que damaa mënoon góol trop nag waaw bi ma fubalee nag. Mm. benn match ñu xam ni kii. football la gën a mën ko góolu après ci laa continuer nag di di football. waaw si nga ne di football xam nga football comme ni ma ko waxee ndoorteel gi nawetaan la mais booy seet niveau bi si yegg tey tey yàlla dogal ko booy seet seen rakk yëpp nekk si nawetaan loolu lañu loolu la ñu opté ñoom ñëpp ku si football rek booy seet dafa bëgg yegg fi nga yegg tey ban secret ba affaire bi secret bi lan nga leen mën lan nga mën a conseil nga mën a jox booy waaw dëgg la boo xoolee ñun ñu daan football dañ daan jege suñu mag yi. Mhm. parce que man boo xoolee man presque jour raay laa doon fréquenté. waaw boobu temps ñi ay ay ay ay Ablaye ay ay ay ay Mbaye Gambi xam nga boobu ay Ama Diagne ay Lamtooro yi ñooñu ñun ñoo nekkoon si suñu fréquentation ñoom lañ daan fréquenté. par contre bu ñu daan leen daan fréquenté dañu daan jox ay conseils. comme yan boo leen ni dee leen dem di entraîné ji tout le temps boo leen xëyee dem daw boo leen ñëwee ngeen football yi ngoon gi parce que dañoo gëmoon entraînement ñun. Ah, entraînement daal moo taxoon ñu ñu ñu ñu ñu àgg ci niveau bi ñu àggoon entraînement moo taxoon niveau bi ngeen àgg mais ba nga jigee si nawetaan ban niveau après nga nga atteindre bi ma jigee ci nawetaan dama dem jouer mbaaxaan mbaaxaan waaw dama dem jouer national mbaaxaan mhm. fekk fa sama grand yi man ñi ma la doon wax nii rek ay ay mhm. waaw ay mbay gambi ay ay ay daabaay gars yi mhm. léegi ñu seen ginnaaw ñi ñuy jàngal ñu won yoon bi mbaaxaan laa football daal après. bi nga jugee mbaaxaan. bi ma jugee mbaaxaan après gars yi ci lañ décidé nañu def ligue professionnelle. ñu daal di tas équipe yi ñu ne équipe bu kii na nga na nga bu matal ko ma la règlement yi da ngay da doon professionnel. léegi nag équipe yu bëri matal ñu ko woon. après nag ci lañu ñun ci laa demee Ñàmbur. Ñàmbur bu Louga. waaw fekk ni dama doon football foofu nawetaan ñu gis ma fa. penc ma joué fa phase nationale. Mhm. après ñu gis ma fa. ma daal di ñëw daal di jouer ñàmbur bi nga jugee ñàmbur bi ma jugee ñàmbur après ma dem jaraaf jaraf, waaw mais tey teewul entre sa ak tamul ben problème entre ñàmbur ak jaraaf si sa cas bu ñu rappelé woo si si amoon na problème amoon na problème parce que bi ma jugee jaraaf ma signé France après problème xaalis daal amoon na ci waaw mais ba ngay dem France jaraf nga jugee jaraf laa jugee jaraf nga jugee waaw contact gi dem France bi xamoo fan la jaaree non contact ban équipe nga jëkk dem France Auxerre Auxerre parce que bi may dem France euh, équipe yi bari bari soxla woon nañ ma li ci mel ni ay Rennes ay ay Dubaï al al ay Al Ain ay Fribourg équipe yu bari mais ci Thierno Seydi Mawaye moo doonoon sama agent. Mhm. fekk Auxerre ñu ngi doon jouer Ligue des Champions léegi mu ni ma mu tegal ma projet Auxerre bi. Mhm. mu ni ma comme dañuy jouer Ligue des champion te am nga possibilité xam nga ci laa demee Auxerre mhm. waaw. léegi bi nga demee Auxerre foofu nga commencé sol may équipe nationale wala avant nga dem Auxerre commencé woon nga. non non avant may dem Auxerre. Mhm. jaraaf laa solee may équipe nationale. ban catégorie euh, catégorie senior ab équipe nationale locale. Mhm. équipe nationale locale moom joué na ay ay kii yu bëri compagnie yu bëri dem nañu Bénin dem nañ Nigéria dem na UFOA UEMOA joué na joué na joué na kii yu bëri euh, compétition yu bëri. Mhm. waaw après bi ma fa jugee bi ma demee jaraaf. suñu année bi bi ñu jëlee championnat bi. après ci la ma Amara woo en équipe nationale A. léegi bi ma joué équipe nationale A ma daal di dem Auxerre. bi ma demee Auxerre après ci lañ ma woo en équipe nationale olympique. waaw olympique presque j'ai fait tous les kii euh, éliminatoire ci laa defee éliminatoire yëpp ñu dem Angola jugee fa dem Tunisie. après par contre ci lañu ñu léegi nag moment yi ñuy après j'étais j'étais malade waaw après gars yi daal ci lañ continuer kii bi compagnie bi. mais bi nga njëkk ñëw équipe nationale A ah ban numéro nga jëloon. numéro 11. <laughs> waaw numéro 11 bi def naa indi woon na indi woon na benn polémique quoi parce que si kii mu jugee. waaw gaa yi dañ ko faa bàyyi woon. dëgg la mais yow da nga ñëw rek jël numéro boobu. si si je la woon gëm sa bopp ni moom la mu defoon war nga ko mën a def.

man leen lu tax kenn du sal maillot bi ñu ne ma ñu ne ma xaw ma lan euh, cherche pas des problèmes man leen nag man numéro 11 laay sol. oui nitu Thiès la bu ma solul laa dëkk. bu ma solul 11. ñu ne ma man leen kon jarul may après problème am quoi. waaye ma yaasin naan non non jeune affaire yooyu. waroo sol laal numéro 11 jëlal numéro xaw ma ñu jóg mu maa jox numéro 22 man leen du ma sol 22 11 laay sol. amara daal di ñëw daal ne lan la ñu ne ko kii mooy laaj numéro 11 affaire yooyu. mu leen jox leen ko numéro 11 bi. oui parce que gëmoon nga numéro 11 bi li ci donné, Hadj yow mën ko say def. bien sûr. Mhm. jox leen ko numéro 11 bi. Mhm. ci lañ ma joxee numéro 11 bi après ma jël daal toog ci banc bi. Mhm. ñu joué Sénégal Cap Vert. après bi mu desee ay 20 minutes ma daal di dugg xam nga euh, public bi euh, émotion émotion bi ma daal di dugg daf match bu baax. après ñu jugee fa dem Congo waaw. mais numéro 11 bi bi nga ko jëlee ba après match bi El Hadj mosu leen say wax. Hmm? mosu leen sa wax dara si numéro 11 bi nga osé woon ñëw li fa ñëpp bàyyi nga osé ñëw jël ko. si si am na benn euh, ñu daje mu ni ma yow yaa jël sama numéro 11 affaire yooyu di wax ma ne ko hmm. waaw mu ne ma nooyoo guerrier nga. Hmm. nga xam naa ni guerrier quoi xam nga j'étais suivi affaire yooyu xam nga tu es talentueux góorgóorlu liggéey affaire yooyu mais sama bi nationaux yi xam nga moom bi nationaux yi la ma yoon jël numéro 11 am. parce que moment boobu xam nga rek. Ah, mais dans tout ça équipe nationale bi nga jaar Auxerre bi nga jaar ak yooyu bon bon football bi lan la rapporté bon souvenir nga si am boo xam ne bon souvenir la boo xam ne tol toll da nga koy xalaat football bi depuis nag bi nga diiree nawetaan ba bi ngay dem au niveau. non souvenir bi mooy parce que je marquais tout le temps des buts buts extraordinaire la doon dugal. Mhm. waaw at remporté jël naa ay coupe ay jël naa championnat mhm. moment bi ma damay Auxerre tamit. xam nga ma dem ñu dugal ma ci réserve bi. xam nga au début c'était un peu difficile bi ma duggee ci réserve nag. ma ñëw maa ngi ñëw ci mi saison bi. comme ay le 4 janvier ma war a teeb def 6 mois. pour euh, rejoindre équipe A bi. bi ma ñëwee aussi tamit ma daal di commencé gars yi commencé nañu juin ba janvier man ma daal di dabee. janvier ba juin il a terminer meilleur buteur aussi. Mhm. ça m'a fait quelque chose quoi parce que le fait que nous ñëw daal di mhm. meilleur buteur. xam nga signé signé contrat aussi professionnel. li gars di gars des souvenirs mhm. mais nga football vraiment si xam nga regret bi moom regret bi moom mooy comme li gars yi di wax rek des fois ma romb benn nit mu xool ma yëngal bopp bi quoi. Mhm. su ma laajee lan la affaire mu ni non xam nga attaquant yi football fii yëpp xam nga. Mhm. xam nga yaa dàq football. Mhm. xam nga ja heure bi waroon na laa fekk ngay football Barcelone wala heure bi waroon na wala heure bi na waroon na xam nga. des fois yooyu ngay dégg rek tey. après da am regret quoi mais xam nga rek. àdduna moom boo ci nee da sant yàlla. mais bi mu koy wax yow comme dafa jàpp ni. moment bi nga décroché waroon bàyyi wala. non du loolu man nag sama carrière moom dafa dafa bëri ay ay coow. comme nan comme nan xoolee ay coow comme ni nga wax sànq signature contrat fii. mbaaxaan fii Njàmbur. xam nga numéro 11 euh, bi fii. Euh, jaraaf xam nga numéro 11 bi fii mm-hmm. jàppal bàyyi xam nga y avait beaucoup de détails yoo xamante ne xam nga rek après da ngay dem ba da lay ëpp doole ci papa mais la nga jàppoon ni indi coow yu bëri yooyu foo dem rek coow topp la nii. je sais pas état depuis nawetaan. licence yu club yu bëri yi nga tàmmoon di football. xam nga xam ne. xaw na baax si joueur. déedéet man nag kaw fu ne nga football fa boobu topp la di topp di la topp ba après yow presque doo jël affaire au sérieux parce que doon football pour football. man benn fenn am licence bu bu bu bu bu bu valable muy AG Déggo yeneen yi ma doon dem di jouer yëpp dañu ma doon ñu may forot nduróowaale laa jouer. da ngay tàmm ba tey. waaw parce que ñàmbur ak jaraaf. ba ban problème ñu war am fekkee logique na rek. si logique. pas ñàmbur ak jaraaf c'est entre mbaaxaan ak jaraaf ak jàmbur man xawma seen dil bi nu mu demee. très bien entre mbaaxaan parce que club la jaar il paraît que dañ doon laaj xawma club formateur affaire yooyu xaalis. waa jaraaf ñu leen non club xawma xawma daal man maîtriser wu ma sujet boobu mais ay détails ay coow ba ay am ci xam nga mais. maîtriser wu ma ko daal. maîtriser wu coow yooyu daal. coow boobu moom maîtriser wu ma ko. bon léegi am nga say rakk yoo xam ne par exemple ñoom ñi ngi si yoon bi nekk ay doomu cees comme ñoom Habib Diallo ay euh, Sidi Sarr ban conseil nga leen jox comme ñoom instant bi ñu ngi toll yow fa nga tolloon di ay Oscar ay yooyu ñoom ñi fa toll moment bi boo leen conseil daal loo leen conseil non samay boy lañ ci mel ni ki nga ay Habib Diallo ay ay ay ay ay Sidi Sarr ay Dame Ndiaye ay Janjaay wala Janjaay waaw ñoom des fois bu ñu dajee waaw xam nga ñoom ay booy yu baax la ñoom ñu ngi ci yoon bi. xam nga li ma lay wax mooy ñu góorgóorlu parce que concentré wu ci li ñuy def xam nga moytu détail yu bari daal. détail comme yan. mooy coow rek xam nga footballeur moom kaaka football at coow a ànd mais am na coow yoo xam ne moom mooy loolu baaxul. comme yan comme yan boo ko waxoon mooy a coow coow rek ay détails xam nga yaa ma gën a xam xam nga xam ma leen sax mun naa ne man fi ma jaar ñoom jaaruñu fa. waaw voilà voilà moo tax bëgg leen ko. man moom championnat Sénégal laa jaar championnat bu métti bi. jël fi meilleur joueur. Mhm. xam nga presque jël meilleur buteur tamit aussi. Mhm. xam nga dugal fi ay bi yoo xam ne fi ma jaar championnat bu métti laa jaar. Mhm. waaw coow li nag jolli xam nga c'est rare nga gis koo xam toj na championnat Sénégal dem. waaw ah, c'est vrai bariwul bariwul bariwul. bariwul ne toj nawetaan toj championnat toj kii ba équipe nationale. waaw bariwul moom carrière yooyu ñu koy def. li ma sama li ma sama benn waaye mu ne ma Sénégal boo bëggee kii da ngay rëcc. buñ la xam début bi da ngay jékki-jékki rek fël. rek fël c'est vrai. waaw mais bu ñu lay bàyyi xel la plupart mooy loolu. mais si nawetaan ban mooy sa club de cœur. nawetaan. Hmm. man ASC ASC Déggo fa laa dëkk. club de cœur waaw. est moment bi nga nekk si euh, professionnalisme bi noonu est ce yaa ngeen leen doon nemmeeku. ah bien sûr. moom boo leen ko laajee ñoom xam naa dinañ la ko wax. non man kay comme yaa toog yow laa koy laaj bi. waaw leen may ay mayo demeeku quoi. waaw daan naa jënd ay nga ndor fi nga defee sa ndorteel seen ñaan dafay baax quoi si joueur est ce que loolu ba yaa ngi ko doon bàyyi xel. si si bi mais am na am nañu fa benn équipe FIFA sax dama leen daan jëndal mayo daan leen wutal ay matériel ñu doon comme équipe bu championnat. Mhm. fu ne lañ daan dem football ci Sénégal dañ daan dem ba Louga football yi dem ba Kaolack football yi xam nga équipe nawetaan bi tamit def naa fa la fa ay mayo multi reprise jënd naa fa ay bal def naa ko fa. mais xam nga carrière joueur dañuy dem chaque fois si ndorteel ga ñàkku ñàkkul ni ay nit yoo xam ne jàppoon nañ sa carrière ñoo xam ne à part bi ñoo xam ne bi ngay soog a door jàppoon nañ sa carrière ñii di jënd daal fii ñii di joxe ay couchant fii ñii di joxe ay passe ñan nit ñoo marqué sa carrière ba tey boo toogee tey doo leen fàtte mu sa carrière. waaw xam nga loolu du ñàkk ci ci ci ci équipe ngay joué nawetaan xam nga nga def benn match benn waaye ñëw may la dàll wala nga def benn match benn waaye ñëw may la xaalis xam nga loolu du ñàkk ci ci nawetaan am na ñoo xam ne dañ koy def parce que da ngay joué si club bi mais am ñoo xam ñoom dañoo bëgg Jeylaani rek ñoom topp ko di ko jàppale daal bëgg rek Jeylaani réussir non loolu bari na amoon na am na lim ñoo xam bari xam nga ni tey dañ leen remercier bi ñu jàpp non bari na trop li ci melni ay ay ay cheikh raoul cheikh raoul sama xarit la mom xam nga ganaaram yep mën naa ni maa ko lek cheikh rawul mhm. mbay gambi aussi mën naa ni suma daan am mas dem jub kërëm laa jubali rek jël ay dal dal dal dal dal dem fubali mhm. xam nga bari nañ mën naa ci lim ñu bari mhm. waaw ay lam tooro yi dañ la daan jël seen xaalis di la ko jox mais yaa ngi seen dégg ñoom ba tey quoi waaw ñi ngi déggante waaw ay laay kan des fois bi daan góol dama daan jël ay gaam sàcc ay gaam dem góoli waaw ah, yu baree bëree bari mais excès équipe nationale buy football nii excès yéen jàpp ngeen ne bon li ñu war a traité extrêmement boobu baax comme yéen internationaux yoo xam ne jaar ngeen pare bu demee stade war a seetaan match excès ngeen am traitement bi ngeen war a am ñu xam tey jëlee ni Fall nii jaar na catégorie ne sol na meilleur équipe nationale bu ñëwee tey ñu teg ko fi ñu ko war a teg est-ce que daa ngi sentir nii loolu yaa ngi koy am. non loolu moom Sénégal amu fi. amu fi. déedéet Sénégal moom li del nekk ci ci kii bi tempo bi rek. ñoom ñu respecté la mais comme yow tay bu ñu équipe nationale nu muy demee da ngay pass wala da ngay demee non des fois xam nga rek gaay gaay sonal la affaire yooyu wax waa benn waaye jóge fee rek jëw ni la ñu mais da ngeen da ngeen def wala kii du pass parce que c'est un international xam nga après gaay wax ci ngay da ngay dugg mais du nga am accès quoi sax ci équipe nationale non loolu moom loolu mun naa ne sax ñi ko fi kaas bari nañ mhm. ngi bandi sax ko ko doon ko doon kaas mhm. ñi ko fi ñi ko fi kaas bari nañ torop mais kon yéen anciens yi amu leen benn panel wala dara fu ngeen nii. non non di fa waxtaan di xool yan solution parce que yéen a jiitu booy yi yéen a soroon may équipe nationale. est-ce benn panel boo xam ne yéen anciens joueurs yëpp di ngeen ci tase di waxtaan di def yoo xam ne tey au moins di ngeen xam ni ñi fi njëkk a jaar am na fi ndajal di di indi seen seen seen kii ci booy yi. non non loolu moom ah man de gisuma man gisuma ko de loolu amu fi de waaw franchement man moom gisuma ko. kon ba. desee na xamante nañ bu ñu dajee dañuy taxaw waxtaan ka foreetaan après boo paree ku ne day dem. mais ba dese Pape Bouba Diop sax nga xam ne ñu ngi koy ñaanal yàlla vraiment fi mu jógee nii fi mu jëm yàlla na ko gënal amu leen benn action boo xam ne sentir nañ que ni yéen anciens internationaux yi jàpp ngeen pour def ko si comme seen naataango la boo xam ne yéen solo woon may équipe nationale bokk na woon benn objectif ak lépp yàlla jëlee ko fi bàyyi leen yéen même fekkee moo leen jiitu wala ngeen jiitu ko. teg say rafet jàppoo ni yéen ñëpp war ngeen def benn affaire boo xam ne pour moom la. waaw xam nga euh, dara ma boo xoolee day fekk gaa yi déggoo ci. Ah, loolu moom déggu dégguma dégguma dégguma kenn dégguma dara xam nga te boo xoolee Pape Bouba sax mun naa ni moo ñu njëkk a fubal. Mhm. fuuf di ko jaale waa këram aussi xam nga parce que je me rappelle moment bi mel ne Amiens. Mhm. mus naa ñëw ndeysaan ñëw entraînement quoi. Mhm. bi ma ñëwee sama casier ma ñëw gis ay dàll dàll yu ngand. daal crampon mu ñëwee ma ni waa kan moom daal yi ñu ni ma après sama benn waaye mu ni ma y a un vient faire des tests ici benn tubaab quoi ma ko ah. Ah, jiitu fa jiitu ma ne ko kan la mu ni ma c'est Pape Bouba ma ne Pape Bouba ok. après nag bi mu ñëwee fekk ñu entraîné ba pare ñu sangu après ñu toog di waxtaan je me bien moo ami après il m'a donné des conseils waxtaan affaire yooyu par par la suite nag après déggaatuma ko gisaatuma ko. mais en tant qu'ancien international lan ngay man message ngay lancé waa fédération pour au moins yéen sax sen wàllu wéy na mais ñi nga xamné ñoy mujjé mujjee simi équipement équipe nationale pour nga xamné ban traitement nga bëgg nga xamné ban message nga leen lancé pour au moins ñu mën ko traité ñi nga xamné au moins sonnal nañ Sénégal sax au moins yëkkati nañ drapeau Sénégal yóbbu ko fenn. non il faut il faut le respecter rek. Mhm. parce que tay bo xolé représenter équipe nationale tay c'est quelque chose bo xamante tay mom ñu mom la ñëpp bëgg. parce que mi ngi mel ni tey nga dem xare guerre. Mhm. mi ngi mel ni nga sol tenue rek dem guerre parce que loolu lay loolu lay loolu lay nduru donc kon waa ji bu fubalee équipe nationale tey ba yàlla daf mu bàyyi bu ñëwee. Mhm. au moins nañ ko jox ci moom. Mhm. xam nga traité ko de façon boo xamante ni. ñu sentir ni moom c'est un ancien international. waaw mais gars yi des fois da ngay ñëw xam nga ñu yaa ma gën a xam Sénégal. waaw mais au niveau international joueur yi nga daan taseel. comme ay Camerounais wala ay xeet wu ne est-ce que yaa ngi ñoom contact ba léegi ñu ngi daan bokkal ay équipe. waaw maa ngi déggante ak ñoom su mel ni ay comme ay am naa ay xaritu mal malgache. Mhm. parce que mel ne Auxerre ñoo nekkandoo woon ay togolais. Mhm. ay ivoiriens aussi. ay burkinabé ay Alain Traoré ay ay gars yëpp des fois ñu ñu déggante vite fait nii ci par ci ci réseaux sociaux yi. mais comme yow ni tey boo gën voyagé wala dara en tant que ancien international. danga nga am passeport boo xam ne dañ la ko délivrer pour kii wala ngay wuti visa. non. lépp si traitement ba mais genre a bañ a difficile quoi. Mhm. du difficile. ah du difficile quoi au moins man statut international moo ko jox wala. waaw statut international parce que euh, aussi euh, ancien professionnel aussi. Mhm. xam nga comme mos ngaa doon professionnel. Mhm. xam nga. mais mos ngaa doon professionnel bi si. day nekk au niveau international wala si côté Sénégal la waxee côté fédération est ngeen traitement boo xam ne yéen tey bu ngeen bëggee voyager même bu dul sa côté professionnel bi ngeen xam ne am na lu ngeen defal Sénégal au moins ñu permettre leen ngeen am facilement pour dem voyager wala dara. waaw gars yi moom papier boo leen laaj dañ la koy dañ la koy defal. dañ leen ko yombalal waaw. dañ leen ay Léonard kii kii Fall papier boo moom dañ la koy defal. Mhm. parce que temps maa ngi doon laaj benn passeport sportif mais dañ ñu ma boo ñëwee ñu defal la ko quoi. Mhm. après la suite mujj mujj maa dem sax. ah ok côté boobu moom. amuñu ci boobu moom amuñu si amuñu ci problème bu ngeen bu ngeen ko yombalal quoi waaw dañ la ko yombalal moom. mais côté famille pour terminer côté famille bi comme mère bi tey boo war doon joué ji ay équipe nationale wala dara lan nga daan sentir si moom. non bi moom xam nga mun naa ne sax maire bi moom. tey booy joué moom looy def lu dul ñaanal la. Mhm. xam nga waxtaan ak yow xam nga kii di premier soirée sama mère bi aussi maman. moom sama mun naa ni sama gayen la. Hmm, waaw nuru la moom sama gayen la moom. des fois hmm. dañuy toog waxtaan xam nga. ne hmm. Seynabou aussi xam nga moom tamit moom ñoom samay gayen lañ. Ah. moo leen duñ samay dañ moo toogee di waxtaan ak ñoom moom. xam nga mooy loolu. di leen remercier bu baax. waaw cees moom booy dalee leen nambalee booy xamatuñu foo nekk. parce que des fois ay match dafay am. dëgg la gaa ñoonu joué mais Thiès ba tey dañ naan jéelaane jéelaan dañ lay laaj quoi. dañuy bëgg di la gis comme foofu nga débuté woon comme ça di ñëw. comme daal jouer si terrain yi gars yi di la gis. dëgg la léegi loolu leen wax ñoom. non Thiès moom xam ne namaat nañ la quoi namaat. Thiès moom xam nga la Thiès moom hmm. sama sama mun naa ne sama xarit yëpp fa ne. Hmm. xam nga Thiès moom mun naa la ma fa def defu ma defu defu ko fenn. voilà hmm. dëkk heure neex dama fay dem xam nga mais des fois boo bëggee dara da ngay da ngay da ngay lolu quoi. waaw ah c'est la loolu liggéey xam nga jàpp sa ñàmbur. kon moment bi mën nañu wax ne Dieylané war na football bi ginnaaw ko non non maa ngi football ba léegi. Ah, mais yaa ngi fa pour opter demande demande football yi quoi. bien sûr ah amoon naa ay contacts yu bari sax mais ma nee ci dëkk naar yi. Mhm. après bi ma bi may ñëw j'avais pris un peu de poids. waaw ah, jëloon naa fi yaram xam nga. Mhm. par contre bu ñu ma contacté des fois équipe bi dama doon soxla sax. Ah. xam nga si tu n'es pas xam nga sa bopp quoi. voilà boo nga il benn moment. Mhm. liggéey liggéey liggéeyaat ba jëlaat sa poids normal ba jëlaat sa forme. Mhm. après nag ci ngay da ngay am fit sax foo dem da ngay football waaw ah, loolu moom c'est vrai parce que dama daan dem voyager nii mhm. mais bu ma dañ naan ma talent mi ngi fi mhm. mais il faut que nga def un deux mois pour soog a adapté xam nga gars yi duñ ko wax talent duñ ko wax mais dañ il a pris du poids wala ah, il a xam nga côté physique avant nga def dara mom xol côté santé côté physique côté fofu rek mën nga fa mën nga fa échouer quoi voilà té loolu nga doon loolu laa doon bañee dem naa fay benn yoon ñaar yoon ci dëkk naari ñett xam nga. Mhm. mais après loolu lay demee quoi da ngay signé contrat. Mhm. mais genre xam nga naari moom yaa ma gën a xam boo signé contrat contrat tànk lañ lay signé. <laughs> ni foog nga dugg ci terrain prouvé. Ah, pour ñu ah. mën laa fay sa xaalis. ah mais contrat kay loolu la war a loolu la boo xoolee Maroc bi signé naa fa contrat. boo mhm. début j'ai fait des boo jël championnat bi. aussi xam nga ñu war maa fay sama xaalis sama xaalis bari ma nga fa ma bàyyi. ay millions yi millions millions. ah bon après avocat defal nii topp mais xam nga après du ko jar. xam nga yi moom dañ lay gis nii ngay dox nii rek duñ duñ xam. waaw waaw c'est vrai. waaw te pourtant j'ai laissé des millions là-bas. Hmm. moo xam te ni moo gën a baax sama contrat ak téeméer. te gëm nga ni di ko amaat. ah bien sûr. waaw gëm naa ni tamit euh, yàlla dina ñëwaat ko non bañ a parce que gis nii xam ne xam naa ni moom nitu kese nga moom. lu si bëri sonalu la quoi. non non man su àdduna que gis naa am naa lu ne. daj lu ne tamit daj naa lu ne fu ne dem naa fa. waaw monde bi mun naa ni fu ma demul amul. Mhm. voyagé naa partout dans le monde gis naa lu ne xam naa façon nit bu ne xam naa la. Mhm. donc am na loo xamante ni fukkul fukkul sama bët daal. Mhm. wax sax dérangé wu ma. c'est vrai waaw li problème mooy nga liggéey. ah xam sa bopp jàpp sa ñàmbur. waaw ba keroog yàlla di ñëwaat rek. kon moo de la fin bi pour nga yeddaat sa rakk yi nga xam ne ñoom. football bi daal dañ koo jël def ko métti nanguñ ko booleeg leneen gisuñu lu dul football ban conseil nga leen jox parce que football en général bu échec rek sa àdduna yëpp mën na échec. dëgg la te football moom heure moment bi mu lay bàyyi à 35 ans jàpp 38 ans si la la àdduna di soxlaa. dëgg la moment bi ngay bàyyi football àdduna nag si ngay jàkkaarloog moom te football koy def mënoo ko booleeg métier mënoo ko booleeg leneen xaalis na si wut rek te xaalis boo ko amee aussi amoo foo ko investir daanaka daanu lay mujjee rek. léegi booy dañuy bàyyi seen lépp opté ci football rek yow mi si jaar ba pare ban ban conseil nga leen di jox. non man moom dama leen di conseiller pour bu fekkee genre am na leneen lu ñuy def yi xam nga Sénégal nag liggéey fi am na liggéey yoo xamante liggéey fi dafa métti. métti xam nga am na liggéey yoo xamante ni mun ay journée cinq mille ngay am xam nga te kii jaru ko daal. Mhm. te boo xoolee la plupart sur mille footballeurs. Mhm. mun naa nit ay dix. dix ñoo ci réussir. Mhm. tey mun nga am talent am am mais chance. day am foog nga dajale yooyu yëpp. Mm-hmm. am talent physique xam nga am chance. Mm-hmm. xam nga ba pare mën a dem. Mm-hmm. xam nga on sait jamais daal. man daal di leen wax rek ñu góorgóorlu nit moom looy li ngay def lu ne. ah na koy gëm. nga respecté ko. peut-être un jour yàlla yàlla dina ñëw. waaw ñan ngay gërëm. bon di remercier sama famille. xam nga j'ai des xam nga rek frères et sœurs yoo xamante ni moom tout le mhm. xam nga dañ lay encouragé. Mhm. xam nga am na sama benn frère bu ne Dakar Nando xam nga. Mhm. loolu xam nga sama maman bi ma mère Assou. mère Assou gërëm ay mère Seynou xam nga tout le temps dañ lay woo di la dañ lay encouragé defal nii xam nga góorgóorlul. xam nga yàlla baax na xam nga defal lii ut ay contact xam nga sonn ci yow mais da ngay xam li nga xam quoi. toog liggéey jàpp sa ñàmbur waaw ma franchement maa ngi leen di remercier waaw vraiment yow moo ku toog ak yow xam naa ni macha allah am nga moral de fer xam naa ni déstabiliser la yombul quoi xam naa ni moom presque jaar-jaar bi nga def lépp ba pare amaat mat nii toogaat nii yomb yombul si nit yombul si nit non er man moom comme li ma la sànq rek man moom mentalement je suis bien non c'est wa do ko gis ni ma déstabiliser parce que da ngay lu leen koy Masuk, sax c'est vrai da ngay tok da ngay dégg ay détails yo xamanteni des fois nit wo la ni la dégg li mais da ngay rétat nopi parce que da ngay xam ni yow tay li nga amone sa aduna kenn yow ya ko ñaxé sa bop parce que néna bi mu fi jugé di dam di ñambour mu metti trop nga muñ jugé fa dem jaraaf di gëm ko xam nga talabo mi fi ba légui day gëna yok sax xam nga donc nit moom man mënuma déstabiliser parce que lu ñëw rek nga xam yàlla parce que mënoon naa demee neneen waaw mënoon demee neneen vrai naa tey sama frère bi ngay gis nii moom dàqoon football téeméeri junni mhm. ngi dafa lab géej ci géej la lab ñu mhm. ngi nii Chérif Fall mhm. sama frère la moom ma dàqoon football fuuf yaa ngi dégg tey ngi nii sama sama sama mag la andi photo bi hmm? tey tey tax da ngay gëm yàlla rek parce que tey mënoon naa demee neneen. Hmm. mënoon ngaa jékki-jékki rek ngay jékki-jékki gis jour bu jékki-jékki daanu ci daanu daanu ci teere. Hmm. kii nii mooy ta frère moom moog sa yaay ñoo nekk nii quoi. waaw ñu nii. sa frère la. yaa ngi dégg. d' accord yàlla na mère bi moo nekk nii. waaw. d' sama kii sama tante la. Hmm. Ah, sa tante la waaw ah, sama yaay. Mhm. mi ngi fee gàdd ga. waaw ah, waaw mhm. kii sama mun naa daanaka sax moom. daanaka sa yaay la mais bi ñu fekk yaay sax laa koy wax. moom sama da ngay gisante kii mhm. sama frère te yàlla def li mu def moo ko topp tey moom moom ci géej. waaw c'est vrai boo mënee ñëw tey ba ñëw lii lépp. dalal ma moo xalaatee rek après da ngay da ngay sant yàlla daal. non c'est la. parce que sama papa daf ma xalaat moom famille yëpp cat cat moo leen sonal des fois da ngay ñëw mu lay muy waxtaan di la wax yoo xamante ni xam nga parce que moment yëpp moom waxoon na ma ko waaw yëpp jaar jaar moo tax des fois su ma xalaatee wax yooyu rek après da ngay da ngay gën a am courage da ngay gën a ñafe waaw waaw kon mbokk yi tey ki leen indiloon fierté Thiès la woon nag ba tey sax fierté Thiès la muy Djilani international wax na jaar jaaram wax na fi mu débuté wax na lépp mais xam naa ne ku am moral de la xam ne vraiment boo ko xoolee xam ne gëm na ni moom fi mu jógee dafay delluwaat te loolu dafa am dafa am euh, solo si nit kon lii lañuy indi woon tey seen émission jotaay nawetaan am mbégte nag dañoo déplacé wu Thiès ñëw ba Mbour fekk si ko fi fii mu nekk vraiment pour war na ñun jong Thiès fu mu nekk dinañ ko fa fekk sport bi ñëpp a ko moom ñëpp ko bokk te moom dafa am nu mu si def loo xam ne Thiès dañ koy sagoo Thiès fu mu fu nekkoon tey fii ba Tamba nañ ko fa fekk parce que dañoo yàgg a bégal dafay yàgg sigil Thiès kon tey bu lii amee ba mu dem mbuur nekk fii yoon la ñu fekk ko fi def ak moom émission mu ñaax ay rakam wax ñu tamit fu mu jaar nga xam ne nañ xam ne sport bi ñun ñëpp a ko bokk. kon vraiment ñu ngi koy remercier di remercier aussi waa kër gi ki ñu fi fekk mu ni tantam la xam nañ ni moom rôle yaay lay dox. Ah. parce que ni muy sax boo ko waxul woon ñun ñëpp. dañ équipe Kewel TV ñoom yëpp dañ jàppoon ni moom moom. waaw kon dañ naan yàq. <laughs> des fois Europe ñu ni yàq parce que lu la la koy defal lu ne la koy wax xam nga. nee nañ moom nee nañ moom a yàq quoi. waaw vraiment sama gaañ <laughs> sama gaañ non nuru la ni moom nit ku baax la moom. vraiment kon ki la indiloon tey mu jëlaani Fall. vraiment di di ko remercier aussi di ko remercier parce que mënoon na bañ invitation bi mënoon na gisee ne mais am ak fierte recevoir ñu biir këram ñu ñëw waxtaan ak moom li liñ ci jublu lépp mooy pour mu gindi ay rakam pour mu gindi ay rakam ñu ngi topp si ginnaawam pour ñoom football moo leen ñor mais nit bu la dara ñoree da ngay seet këla fa jiitu nga déglu ay conseil am pour xool nan fan ngay teg sa tànk pour dem ci kon jilaani vraiment ñu ngi lay gërëm équipe TV bi yëpp ñu ngi lay remercier di la gërëm di la sant leen remercier quoi aussi xam mm-hmm. nga ah, mënuma wax ba jeexal te du ma leen parce que mënoon leen a cee bañ bañ a fekk mm-hmm. xam nga vraiment je suis content content naa ci yéen parce que ngeen def déplacement jugee Thiès mm-hmm. ba xam nga pour jël interview loolu c'est quelque chose xam nga di leen ni ngi aussi jeune Thiès. parce que li ngeen di def nii. Euh, c'est quelque chose quoi. loo xamante ni tey xam nga c'est pas donné à tout boo xamante ni mooy loolu franchement maa ngi leen di remercier daal. kontaan naa ci yéen xam di leen wax tamit ngeen def bu leen ko bàyyi. loolu leen mën a jàppale aussi gars yi jàppale jeunes yi ba nga xamante ni tey mooy waaw maa ngi leen daal. waaw kon gaa yi fii la ñu yem ak yéen te di jox rendez-vous dooy Ndoye Dame Ndoye Habib Diallo